ñi ngi lay nuyu di la ziyaar gannaaw bu ñu sant yàlla bu baax julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sant sëriñ Touba ñaanal sëriñ Muntaxa Bachir mu yàgg fi lool te wér sëriñ bi président de la république sa xarit moo ñu yebal fii tey ci Daaru Muxti ci bés bu màgg bi ci suuf su màgg si ci borom bés bu màgg bii di suñu maam maam Thierno ñu jottilil ko nuyoom ak ziyaaram ak barkeeloom ci bés bi ñu ànd ci ak délégation bii nga xam ni nii am na ñu ci lim léegi ñu ràññee ci monsieur le gouverneur de la région de Louga mais ràññee ci aussi ministre conseiller Cheikh Abdou Bali Mbacké bi dëkk fii ministre conseiller Isma jum mais aussi monsieur le ministre conseiller xalifa Wade di PCA bu Sénélec Khalifa Dia ñu mën ci lim aussi doomu dëkk bi nga xam ni ci délégation bi lañ bokk chargé de mission ji li Mbacké mais président conseil départemental bu Mbacké Modou Diagne Fada mais aussi euh, Kébémer ak aussi monsieur le maire de Kébémer monsieur le maire de Darou Mousti gouverneur ànd ci ak tous les du CRD ñu ànd ci aussi ak responsable politique yi dëkk ci gox bi ñu muñ cee lim soxna Oumou Ba madame Ndiaye Mariam madame Mbacké Mariama Ndiaye Moussa Thioune aussi dëkk ci tuuba ñu laa ñi ci aussi ambassadeur excellence El Hadj Dia dëkk ci Bambey nekk ci délégation bi sëriñ bi pour njëkkante ak waxtu wi rek ñi ma limul ñu jéggal ma président de la république moo ñu yebal comme ni ma ko waxee léegi pour mu jottali la jottali ko cantam ziyaaram ci bés bi bés bi nga xam ni bésu suñu maam Thierno la muy bés boo xam ni digganteem ak sëriñ bu mag bi kenn mu umpaliwu ko suñu maam Thierno nekkoon kenn ci sëriñ Touba nekkoon kenn aussi ci réew mi ci taxawaayam wax nañ ci liñ ci mën a tënk ci fàttali rekk bi sëriñ bi di dem ci liggéeyam bu sell bi suñu maam Thierno la dénkoon yoon wi dénk ko njaboot gi loolu moo tax bés bii tey jàpp nañ ne bokk nañ ni ci li nga xam ni suñ borom fay na ko ci yor bu rafet boobu mu yoroon yoon wi ak njaboot gi ndax tey jàpp nañ ne téeméer ak ñaar fukki at ren ñuy màggal bés bi suñu maam Thierno nag niñ ko waxee léegi rek nekkoon ci at yu gàtt ya wax nañ ne fanweeri at yi tegoon na lu tuuti mu yor yoon wi yor njaboot gi ba dara yàquwul suñu borom kon fayee ko bés bii suñu maam Thierno it mën nañ jàpp ne tey démb ak tey référence la woon royukaay la woon ci wàllu jaamu yàlla topp ndigalu sëriñ bi mais aussi ci wàllu économie ndax ñëpp xam nañ ne opérateur économique bu mag la woon ci wàllu mbay président de la république ni jàpp ne suñu maam Thierno war nañ ko wane comme modèle comme tegtal ndax jàpp na ne ci Sénégal mënuñu yootu li ñuy wax émergence ak développement te wéeru wuñ ci mbay moo tax mu jàpp ne bés bii bésu sàkku ñaan la ndax bésu ku tedd la bésu ku sell la moo tax Serigne Bass président la république mi ngi sàkku nga ñaanal ko ci bés bii àdduna yëngu na jamono yëngu na waaye jàpp ne ne rek place yu mel ni bii ci ñaan ci fàttaliku suñ boroom ci dellu suñ borom moo ñu ci moo ñu musal kon boog président la république nee na mi ngi sàkku ñaan bu baax a baax a baax nga réew mi jàmm am na fi waaye jàmm gën fee yokk nga ñaanal àdduna ndax àdduna yëngu na tey jàmm wàcc ci àdduna moo tax mi ngi sàkku ñaan bu baax gannaaw bu mu la ñaanalee ci liggéey bii nga xam ni tey nga toog toogaayu borom daaru yor ko naal fii liggéey yu am solo yóbbante na ma nee na li fi naal yëpp xam na ko bu soobee yàlla mook yow moo ko fas yéene ànd rawatina jumaa ji nga fas yéene yeesal waaye xam na ni dëkk bi it am na lu mu yittewoo ndax ku wax woonu murit wax daaru muxti kon boog fas yéene na ànd ak yow ci liggéey bi ba nga xam ni ni nga ko bëggee suñ borom defal leen ko yéen ñaar ndax jàpp na ne yéen a ko seq kon boog sëriñ Ba sant ñaŋ président mi ngi yeesal santam siyaaram jëmale ci yow nga xam ni xam na jàppale bi ci biir ak ci biti zahir ak baatin mu ngi lay ñaanal yow it nga yàgg fi lool ba liggéey yi nga naal yëpp li nga sumb yëpp nga eggale ko ak jàmm mi ngi yeesal it sant gërëm ak ziyaare waajuram sëriñ Muntaxa Bachir yàlla yàggal ko fi lool mu wér sëñ bi daal pour njëkkante ga waxtu wi li ma président yo waxoon euh, bëri na am na luñ ci waxtaanee barki biig waaye jàppal ne daal président sant na la gërëm na la mi ngi sàkku ñaan ci fii ñu jëm ju mois de juillet incha allah ñu jëm ci ay élection nga ñaan suñu borom def ci dal def ci jàmm defal ko ci ndam lu yaatu ba liggéey bi mu sumb ci réew mi mu eggale ko ak jàmm sëriñ